asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñépp di ziyaaraat ñëpp di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm yàlla yokk sutura dolli mën-mën xéwali saawaan baawaan ci Sénégal gépp ak ci àdduna bépp di remercier képp kuy suivre chaîne bii di lu xew TV donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat di leen defaraat beneen vidéo ci série bii di daw 2STV te waa Marodi TV di ko réaliser muy maîtresse d'un homme marié la dernière fois dañ ci defoon benn remarque tiré woon ci benn leson muy diggante rakk yi ak yaayam cette fois-ci dafa am ñu bëri ñu ñu interpellé ci côté bu négatif bi parce que également comme ni ñu ko waxee woon avant yenn série di am Sénégal bu njëkk liñ doon seetaan mooy série yeneen dëkk donc ñi nga xamante ne ñoo initié affaire boobu noonu ñu ngi leen di remercier mais dafa am yoo xamante ni si nekkul sunu culture nekkul luñ tàmm di ko gis ci télé te série yi ku ne xam na ni xale yi sax dañ koy seetaan te rafetul nga toog ak sa waa kër toog ak say doom par exemple. di seetaan benn série jékki-jékki dégg ci yenn baat yu ñaaw wala jékki-jékki di ci gis yenn action yu ñaaw alors loolu moom franchement c'est à revoir donc ci bi ñuy njëkkee mooy vulgarité bi nekk ci biir série bi seen mooy dafa vulgaire trop série yi neex na trop macha allah mais on dirait du série xale te boo xoolee Sénégal fii ñi gën a accro ci série yi ay xale lañ. donc bu ñu xooloon seen façon de communication ba yenn mots yu vulgaire ñu man ko segg bañ ko boole ci série bi nit ki mën nga jàngale génn ay leçons te li ngay wax du vulgaire trop parce que tey baat boo wax am na neneen noo xam ne soo ko waxee woon mooy gën a nice te du teen nit ki dina xam li ngay wax. donc point bi ci njëkk mooy vulgarité bi ñu gis ci biir série bi seen yenn mots yi dafa xaw a vulgaire trop mënuñu see jaaraat nag. parce que comme dafa vulgaire ay bëgguñu suñu vidéo di am loo xam te ne day choqué mais dañ noté que point boobu noonu ñu bëri ñu ngi koy wax ñu bëri ñu ngi koy waxtaane alors yéen ñi nga xam ne yéenay réalisé série bi mieux vaut ngeen jéem a segg yenn baat yi nga xam te ni mën na choqué su ko defee série bi dina gën a nice beneen point bi ci topp dañu gis la dernière fois Jalika bi ko boroom këram di dóor mais fi ko dóoree ci kaw lalam ci kanamu doomam et loolu pour man certes mi ngi am biir Sénégal mais nekkul image boo xam ni dafa rafet pour ñu koy wane parce que loolu dafa ñaaw ci gis-gis rawatina sa kanamu doomam benn dóor jigéen rek rafetul donte am na fi en pagaille mais je pense que tey bu fekkente ni da nga nekk benn di def benn série boo xam ni nit ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel am na yenn yi négatif yoo xam te ni ko ci di dugal. bien vrai que xëy na série bi moo ko laaj mais dóor jigéen surtout ci kanamu doomam dafa ñaaw trop te loolu noonu également bu ñu di nee di nëbb yenn séquence parce que dafa xaw a sensible buñ ko di mënee di nëbb yooyu séquence wala ñu koy éviter je pense que moo gën donc li ñuy wax ni sunu avis personnel la ak li nga xamante ni également dafa am ñoo xamante ne ñoo ñu ko suggéré ça ne veut pas dire que li ñuy wax par force yéen ñi déglu leen ko war a gëm wala par force yéen ñi déglu loolu ngeen gis donc ñun suñu xalaat la ñuy wax suñu paree képp koo xam ni également am nga ci xalaat mën nga ko mettre ci espace commentaire bi nga wax li nga bëgg a wax donc buñ jógee ci point boobu ñu ngi jàll ci beneen troisième point boo xamante ni boobu moom laa je dis non dañ ko war a baare définitivement muy ci film bi ak beneen film bi mu mën a doon parce que dafa am benn phénomène la chicha bi nga xamante ni si xale yi bëri léegi moom lañu utiliser et pourtant xamuñu lan moo nekk ci biir ce qui en boo gisee dix yu ko utiliser il faut même dire que dix yooyu yëpp xamuñu lii lan moo ko defar wala xamuñu fan la jógee wala su bëree am ba am kenn moo ko ciy xam tey gis ngeen cigarette ni muy def nit ni muy def xolu nit sa poumon yi ni ñu koy def et pourtant ñun leen chicha moo ko gën a bon fuuf ngeen di utiliser chicha te dafa nekk benn phénomène boo xam te ni léegi je me dis ni ñun surtout góor ni dañ jàpp que ni bu ñu demul utiliser ko rek nekkuñu góor ko dañ ciy gis ku ci photo dugal statut gis ku ci photo dugal Facebook saxaar si wër ko mu yaakaar ne mu ngi def buzz fekk mi ngi rey boppam ci biir te yëgu ko am na loo xam te ne nag boo dee jeune di ko def te bàyyiwoo ci xel soo nekkee mag ci ngay réccu ni man kat nekk li ma doon def fii la ma indi tey te souvent lañuy ñuy wax réccu dafay fekk jëf wees ma bàyyi leen ngeen xool vidéo bi ngeen xam réccu fan la mën a yóbbu nit. waaye at bi ak nangam daal lépp lu ma mayoon nangu na ko may jox tubaab fakkan la ab ñuulaay ay yoo xam ne daal moom vraiment dangay waar. day leen nag nii mën naa mën a ko ku ma gis ngay xeesalit su ma la woo sama kër soo ma déggalee danaa la yedd ne bu ci dugg. gis ngeen soxna si su ko xeesal indi li nga ko mayoon bi muy nekk xale je peux dire lépp la nanguwaat ba xool ngeen gis ngeen ni mu ko du mujjee def parfois di nga nekk jeune ñu naan danga nga toll sa digg ndaw danga koy dox dégg la mën nga dox sa ndaw mais nga dox ko ci doxin wu rafet pourquoi dox sa ndaw ñu jàppe ko ni mooy def lu ñaaw def lu bon. man nga dox sa ndaw mais nga dox ko ci lu rafet ci anam woo xamante ne tey ëllëg ku xam ne yow ko ci lii nga doon dox da gën a ñee te exemple yi bëri na bëri na ñoo xamante ne bi ñuy toll seen ndaw ni ñu ko doon defee tey ñu xëy di ko regretté ñooñu rek doy na jël exemple kon képp koo xamante ne yaa ngi def dara bi ngay nekk ndaw ki la gën a féete mag di la ko tere war nga ci bàyyi xel bu baax parce que dañuy faral di wax ni ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay mën a wax nii ngay toogee kon bu la mag teree rek xamal ne am na lu mu gis xale mën na nekk fenn du gis dara mag nekk fu sori du gis li xale bi dul gis donc lool lu jar bàyyi xel la buñ leen di tere yenn nii ça pas dire que dañ leen koy tere juste pour bëgg leen ko tere mais dañuy xam li nga xam ne moo nekk ci biir donc loolu lu jar a éviter la te ñun sénégalais dañ tàmm di roy mën nañuy roy sax loo xam te xamuñu ko dañ koy utiliser rek juste parce que présenté nañ ñu ko bëri nañu fi utiliser chicha xamuñu fan la jógee xamuñu fan lañ ko defaree en plus da ngay gis benn resto wala genre benn chicha moo fay nekk kii day ñëw toog utiliser keneen ñëw toog utiliser keneen ñëw toog utiliser mais ñooñu ñëpp kenn ku ne bëgg a ñëw ak sa gémmiñ nga bàyyi say microbe keneen ñëw jël ko déjà wàllante bi rek foofu noonu ay feebar yi garaaw mën na ko jóge te chicha boobu ngeen di utiliser xam leen également lan ak lan moom lañ ko composé donc nit ki bul dugg ci dara te xamoo lu mu doon gëstu ko ba xam ko xam li ci baax xam li ci bon te chicha sax mënuma wax ni dara baax na ci. parce que loo xam te ne ça tue la personne à petit feu ndànk-ndànk la lay rey te yow doo ko yëg franchement lu jar a bàyyi la te li ma doon wax suñuy magu réew dañ ñu liggéeyal kon bu ñu nangu kenn di ñu yóbbu. bu ñu nangu ñu ñuy présenté loo xamante ne si du suñu culture du suñu aada ñu koy nangu di ko utiliser te nag li ci gën a yéeme mooy ki ko doon def ci film bi ci série bi maîtresse d'un homme marié jigéen la non seulement jigéen buy tux rek buñ ko gisee ñun dañuy tiit waxuma la ak jigéen bi utiliser chicha donc franchement yooyu noonu je pense que waruñu ko di wane ci série yi surtout bu nekkee série boo xam te ne ñi koy seetaan dafa bëri. parce que tey am na sam benn sœur boo xam ne mi ngi toog xamul lu xew ci àdduna bu ko gisee ki ne ci séeréer bi di ko def day yaakaan lu baax la donc yooyu yëpp dafa jar a xel te xam te ni série bi ñu koy seetaan dafa bëri donc am na yenn aspect yu négatif yoo xam ni buñ ko mënee seegaat ba série bi gën a mën a jaar yoon te du am vulgarité du am yenn yoo xam te ni si nit ñi dañ koy ñaawlu après laa mën nañ am série boo xamante ni si même bu dàqul ci série yi même bu gënul ci série tamit dina bokk ci série ci dàq wala ci série ci gën parce que franchement ñi ngi ciy gis également ay point yoo xamante ni ay points yu positif la mais côté négatif bi daf ci commencé bëri surtout vulgarité bi parce que vulgaire na trop Marème ni muy solo des fois gis nañ la également keroog bi Cheikh ñëwee këram ni mu solo jël tànk yi teg ko ci kaw Cheikh yooyu dafa doon ay séquences yoo xamante ni. pour ñun warul mën di jàll nit di ko gis dafay ñaaw trop ñu ngi tuubaat di waat bu baax a baax dellu encore une fois di waxaat lépp luñ fi wax képp ku ko déglu mu naqari la ñu ngi tuub di jéggalu di leen rappeler que ni dañuy joxe uniquement sunu avis ci li ñuy gis mais ci respect lañ koy teg bëgguñu laal kenn bëgguñu vexé kenn donc encore une fois ñu ngi tuubaat di jéggaluwaat bu baax a baax di dellu di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi suivre chaîne bi di lu xew TV donc ñu ngi leen di jaajëfalaat à très bientôt ci beneen analyse merci à tout le monde.